อ่า halaan bi ko Moustapha Cissé Lo farandooru njiit réew mi Macky sàll nee na réew mi fa naqari fa métti dund gi fa cher sénégalais yi sonn nañ turbine yéen a kaay moo ñu ko jottali yéen a kaay bi mel ni ku naan waa kanaa ki farut ak Macky Cissé Lo na leen farag nit terewul nga wax ko dëgg ndax dëgg alalu yàlla la mboolem diwaan boo dem ci Sénégal li askan wi dundee fi mu toll ni fa yokk sénégalais yi sonn kon nañ xolaat suñ bopp si du quotidien na ko yow ka yemoo foofu rek ñaawlu nga tamit Dakar gi nga xam ne fañ koo bëgg a def sociale maanaam président Macky Sall mooy tabb ku ko neex mu nekk fa maire nee nga yow loolu d'accord ci Cissé Lo neen waaw ndax loolu du dëgg du yoon du démocratie nañ bàyyi askanu Ndakaaru faral seen bopp ka leen doy les écoles yéen a kaay na ko waaye du yow rek yaa ci d'accord de Abdou Mbow ak Mame Boye Diaw ñoom ñëpp d'accorduñ ci li Aminata Mbengue Ndiaye wax ci ñu def ko Dakar ba tax yéen a kaay bi na waa APR yi attaqué nañ Aminata Mbengue Ndiaye ñaaw lu xalaatam la ñaaw dëgg nag Guy Marius Sagna lañ ko def ca kaso ga a juróom-ñaar fukki bés ak juróom-ñeent bañ ko tëjee léegi na muy dundee ca kaso ga métti na lool xanam gu jaarut yoon l'observateur mooy xëy amal ab gëstu ca nam fa nekkee ayaw seetal fañ koo ber fukki fan juróom yu ne ci lay mën a oote téléphone te loolu xam nga ñan lañ ko war a def mooy ñi def mbir yu garaaw bañ atte leen ba pare te gii kenn attegu ko Seydi sama ñaawlu ko na nguur gi fa ko bëgg sonal ba xelam mi yàqu mu découragé caalik am ku ko feelu na ko loolu nguur gi mënu ko ndax gii jàmbaar la ku dëgër bopp la yéene kaay nguur gi sax mu jëm ak moom mooy génne ko fonction publique kat dàq ca biti nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ardo ñëng bokk ci ñoo lànk moom it dem na kaso tey lañ koy defeere ca parquet ba critique yéen a kaay moo ñu xamal lim def ba tax ñu teg ko loxo fa bind ci facebook beeg yooyu woo sénégalais yi na nañ dem ca pale ba ñaxtu ngir ñu bàyyi Guy Marius Sagna nguur gi na ko yow li nga def noonu fa garaaw yow mooy oo nit ñi ngir ñu def fitna def lu jaarul yoon kaay ñu yóbbu la ci yoon yoon wi sénégal aw nag ak amérique baax na de ndax juróomi déggoo xaatim nañ ko ci diggante ñaari réew yi enquête yéen a kaay ñu ko xamal yéen a kaay dëggal xibaar bi na ko Mike Pompeo secrétaire d'état moo ñëw fii ba Dakar xaatim li ni mel ba pare rafetlu démocratie bi am ci réew mi ne danañ jàppale Sénégal ñoom américains yi ci xeex wàllu terrorisme enquête yéen a kaay na ko yemuñ foofu américains yi nee nañ danañu dimbale ci wàllu courant wàllu wér-gu-yaram suñu hôpital yi ñu yokk jumtuwaay ya wàllu njàng meeg njàngale mi les écoles yéen a kaay leen ma yokkal leen ci autoroute Dakar Ndar ak centrale courant bi ñu fa a taxawal entreprise américains yi ñoo koy liggéey ba tax yéen a kaay bi ne kon ñaari réew yi mujj nañoo ànd nekk benn Dakar Times na xam nga sax lu ji jur courant bu cher bi ci Sénégal moo nar a wàññeeku téeméer boo jër juróom-ñeent fukk ya Sénégal yi dootuñ ko fay seetal ñaar téeméer ak ñeent ci ay milliards moom la américains yi dimbale Macky sàll njiitu réew mi ngir ñu taxawal centrale bu ñu toggee courant loolu lu baax ci réew mi la li bon nag ba jéggi dayoo ci réew mi mooy contrat bi doxoon diggante Petro-Tim ak Petrosen gaz beeg pétrole bi nañ signé contrat ba dara ca jaarul yoon date ya fañ ko antidaté maanaam lañ ca signé ak bés ba wax ne lañ ko def 17 janvier 2012 dëppoo wut ak yoon ka jiitoon Petrosen nag Ibrahima Mbodj ña ngi ko cay tudd de enquête bu Ofnac ni mel libération xamal ñu ko lam moom la laas yéen a kaay mooy njiit réew Macky kontaanut amul lu ko neex ci njuum teeg erreur yi am ci wàllu jokkoo communication ba nay laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne diwaanu Casamance geer ba moom jeex na fa c'est fini waaye nag jàmm dér see gut ca diiwaan ba de waaw loolu mooy lan xanaa ngeen laaj ko Robert Sagna mi ko wax si di quotidien yeggee ñu ko la mu ñu yeggee moom laas yéen a kaay mooy procureur bu Fatick nee na danañu ubbi enquête ngir leeral dawalkatu Jakarta Lamine ba ñu wax ne policiers yi ñoo ko dóor ba mu dee policiers yi wedd ko ay waajuram bañ na leen yéen la nañ ko leeral procureur na leen na seen xel daal lépp leer la leer nag ba mel ni jant tusubaar mooy ne diggante APS këru joxe xibaar gi ci Sénégal seen njiit la ak njiital Synpics jaarootuñuy taxal de ña ngay ñàkkante bu kii ñaawloo ñaari soxna journaliste yañ fa kajj dàq leen ka ca des ŋànk ne du bàyyi lam sex direct news moo ñu ko xamal tàggat yaram Sadio Mané fa gaañu woon del si waat na lakk na caax ya toj na kër ga dugal bii bu rëy contrôle ca kaw reprise ba tourné càmmooy ba reprise ko bokk ko ci ruq ba stade yéen a ne boobu mooy téeméeralu bii nag bu mu dugal Angleterre record yéen na Sadio kay ma nga yóbbu Liverpool ngir ñu jël championnat ba ma jël sunu lamb yéen a kaay combat bu raglu diggante Papa Sow Siteu weeru avril vox populi moom xëy addu ci Faatu Bintu Gueye doomu maam Maxtaar Gueye bu Jamra bi réeroon benn fan mujj naa feeñ 24 heures na ko fam feeñee nag jur na coow ñu ne ci ab auberge la nekkoon ndeke ak faram police ko wax de maam Maxtaar Gueye na loolu xamut ñii daal fa ñoo bëgg a yàq sama der ngir wane ne xeex gi ma nekkee bañ gi ma nekkee ñaaw lu yenn doxali ni ñu wane ne man daal sama kër sax mënu ma koo gérer sama doom def na lu ñaaw loolu nag lañ ci jublu les écoles yéen na ko waaye leer ndax enquête kat yi danañ déglu sa doom baax wa danañ ko déglu waa ma ne yaay baax baay baax doom juddu bon loolu yàgg na xam di donte waajur wu ne nag sàmm nga ci say njaboot donte njabootu tey gii surtout ñu jigéen ñi sàmmu leen ak a jafe